tëli parce que tey ji moom bu xanu woon tànk tubayam kon problème u nengaleer bi leneen la ñuy wax dëgg la hmm. te problème u nengaleer bi euh, euh, li taxoon litige boobu am hmm. c'est parce que décret présidentiel moo mayoon euh, Babacar Ngom Babacar Ngom possibilité boobu hmm. donc cela veut dire que nii Macky Sall il a signé yoo xamante ni c'était des décrets yoo xamante ne c'est euh, c'est à l'encontre de de ci euh, inter interpopulation bi mm-hmm. tu mais il faut que ñu benn résumé rek ngay mën a def ñun suñu administration mm. administra administration bi mm-hmm. lenn lañ fi doon def politique la ñuy def falu sàcc alalu askan wi enrichir seen bopp enrichir seen njaboot dem seen yoon mm. wax ci as wax ci askan bi ci ndóol Senghor ba ci ba ci ba ci ba ci Macky Sall ah, ak administration Sénégal yi nga xam ne ils sont censés que ñu développer dëkk bi. Mm. ñoom ñooy sàcc dëkk bi. ñooy sàcc dëkk bi. léegi nag yow bu fekkee ni ñii dëkk bi dañu la ko dañ la jox pour nga administrer leen jàppale leen. Mm. pour ñu mën a liggéey ndax lan ñu mën a am le minimum nécessaire pour dund. Mm-hmm. nga sécuriser leen ci côté alimentation ci côté sanitaire. ci mm-hmm. côté sécurité sociale. ci côté habitat. Mm-hmm. mais yow defaloo leen dara. da nga leen bàyyi seen bopp maire boo ci fal sàcc suuf lay def. Mm-hmm. jaay di dagg di jaay di dagg di maye. ñun Médina dégg naa sax ci cour gi de cour de compte yi. waay eh, eh, eh, ko ciy tudd. Mm-hmm. mais xam Médina dafa amoon ay douche publique. waaw mais douche publique yooyu yëpp mais maire bi jël na ko def ko ay magasin. Mm. loolu noo koy noo koy noo koy jugé. mu bëgg a ñëwaat defaat yeneen douche publique. fan la koy def léegi ci jardin yi fi ñu programmé woon pour def jardin pour pour cadre de vie nga bëgg jël jardin yi def ko douche publique douche publique yi fa nekkoon nga def nga ko ay sàcc nga ko def ko ay magasin. c'est pas intelligent c'est contradictoire te yow zone boobu mu ngi commencé nekk zone commercial parce que Médina ak centre-ville léegi benn la yaa ngi jël allée di centenaire ngeen transformé ko def ko Chinatown désordre bi fa nekk kenn comprendre ko amoon na douche publique bu nekkoon angle gumba te boobu centenaire nekkagul woon nekkagul woon na marché léegi foofu boo demee mangasin la douche publique bi te foofu yëpp ay magasin chinois la te comme marché Sandaga wala marché Petersen mm-hmm. jëlal marché Tilène amoon na douche publique ah jëlal cëriñ amoon na amoon na benn boobu moo fa des maanaam douche publique bu cëriñ te foofu communauté lébu bi ñoo ne doo ko laal. bu dul def ko magasin. loolu loolu mooy mooy loolu. léegi yow ñun suñu maire yëpp yow wax ma rek yow ban maire nga fi gis Sénégal mu def liggéey boo xamante ni mucc na ayib wax ma boo ko xamee. Hmm. ban maire. te balaa may dee nag ñuy defar jardin yoo xamante ne bu ñuy defar jardin bu ñuy defaree benn espace defal ko jardin te amuñu ndox buñ ko roose. <laughs> amuñu ndox. amuñu ndox. amuñu ndox bu ñu ko roosee après jardin bi day de monument bi nga xamante ni mooy place de la place de la nu mu koy tuddati place de l'obélisque. Mhm. mais ñaata yoon lañ ko fi defar. boo demee mi ngi mel ni euh, mi ngi mel ni kii bu ñu abandonné àll bu ñu abandonné. Mhm. ñu tëj xam nga nag problème bi mooy bu fekkee da nga am ay dirigeants yoo xam ne sont ignorants mais comment faire comment faire. sàcc suuf moom xam nga Macky Sall waxoon na waxoon na ne man. Mhm. réclamation yi may jot fii sama comptable yëpp yu ci ëpp litige yëpp problème mu suuf la. Mhm. mais sàcc bu jiitee ay sàcc yeneen sàcc yi naka la ñuy naka la ñuy naka la kiiwee. Mhm. Ah, mais te sàcc bi te dafa commencé depuis ci jamonoy Ablaye Wade. depuis ci jamonoy Ablaye Wade. ñoom waa PDS ba ñu fi ñëwee la la la la problème mu foncier yi commencé. réserve yi nga xamante ni socialiste yi dañ ko fi bàyyi woon yëpp. Mm-hmm. yow naka ngay mën a comprendre yow monument de la renaissance ñaata milliards ñaata milliards la ci Ablaye Wade def. monument de la renaissance ñaata milliards. la ci Ablaye Wade def bëri na ba pare nga ñëw tabax nga ñëw nga ñëw tabax immeuble boo xamante ni sut na ko. Mm-hmm. kon loo loo fa doon defee monument. jaru ko woon. boo jógee Ngor di dem ville doo gis monument bi. Mm-hmm. boo jógee ville di ñëw Ngor doo gis monument bi. dañu tabax ay immeuble yu ko tiim nëbb ko il faut que nga ñëw ba ci ak ak autoru monument bi pour mën ko gis caisse de dépôt et consignation seen immeuble boobu ñu def seen tour bi waaw mais loolu c'est illogique ko mooy bi nekk ci booru almadi bi noonu waaw en face Mamelles noonu mais loolu c'est loolu c'est inadmissible. Aliou Sall moo ko lancé woon. le frère du président mais loolu bu dul woon frère du président est-ce que dina am sañ-sañ bi non simplement que mais c'est nul. nañ ko defee baaxul. mais gis nga ot kii bi foofu mu nekk noonu autoroute bi foofu mu nekk ba ci géej gi dara waru fa woon doon. waaw dara waru fa nekk phare des Mamelles phare des Mamelles ñu ñu ñu ñu tu monument de la renaissance à côté ñu yëpp yëpp ñu nga ci fa ay immeuble te à cent mètres de côte de maritime immeuble waru fa taxaw foofu normalement xam nga lan nga ko waroon a def ay ay ay ay restaurant ay ay ay ay kii de promenade ay jardin pour que ñi dëkk foofu ci cité yooyu nga xam ne ñoo jege plage bi am fu ñu féexloo am fu ñu doxantoo guddi. genre camping yooyu quoi ñëw rek samp ay bâche samp ay. Euh, ñoo xamante foofu ngay féexloo. Hmm. parce bu fekkee ne tu as fait une journée de travail. mais yow mënoo jóge ci bureau ba bureau de travail ba jóge ci bureau de travail ba dem sa kër. tëj tëjuwaat waay. <laughs> ah hmm. xanaa on ne vit pas pour travailler mais on travaille pour vivre ngir yàlla. mais yow nga dëkk ci booru kot te amuloo espace boo doxantoo ci sa booru kot ñu jël yëpp jox ko ay privé. problème la. Hmm? ñun esol bi. Médina lañ dëkk Médina euh, teeru bi euh, lañ doon euh, plongé waaw lañ doon kii mm. nu mu tuddati mais léegi amatuñ fa place yow yaa ngi indi Magic Land ñu koy jooy noppeeku ñu koy jooy noppeeku ñu teeru bi ñëw def ñu nekk la léegi teeru bi dem nag ba jël place bi nekkoon ci ginnaaw oui dafa def extension yokk na waaw mais sàcc boo xamante ni comme ay dëmm yu gis yàpp mm. mais Sénégal Sénégal Sénégal c'était c'était grave quoi te coalition euh, politico religieux bi. Mhm. yow léegi da ñëw jël suuf ah sédd si des responsables religieux responsables politiques yi. Mhm. responsable reli euh, euh, politique yi dañuy dañuy bëggoo responsable religieux yi. Mhm. nga xamante ni comme dëkk bi ñëpp ay taalibe lañ boo ko defee ñoom léegi taalibe yi dootuñu wax parce que dañ naan bon sëñ diw wala kii diw lañ jox fii. piqûre ñu anesthésie boo xamante ni dootuñu kenn du wax waaw sëriñ si lañ ciy dugal quoi pour euh, pour pour pour fi li ñuy def mu jàll man ba ma dëkk jékkee ñu ne ma cité Mbacke yu fay mais Mbacke yu fay dafa dëkk Wakaam ba fay jékki-jékki ñu ne euh, euh, suuf aéroport mais imagine toi xam nga li may won ni ñun suñu état yi dañu nul aéroport bu bees bi jas ba mu pare. Mm-hmm. mais waruñu woon toxal aéroport Dakar Yoff. waaw. aéroport bu jas bi waroon nañ ko mën a def aéroport international aéroport Dakar Yoff ñu def ko aéroport national. Mm-hmm. aéroport Dakar jas dañ ko waroon def aéroport international aéroport Dakar bi ñu def ko aéroport national. Mm-hmm. nga xamante.